ñaari jëmm yu mag ci yoonu murit muy soxna jaara buso way juru cheikhul xadim ak soxna faati isa waaye juru maam cerno ibrahim borom daaru moxti mu fas yéene ànd ak ci waxtaan boobu kenn koo xamante ni deesu ko présenté ci yoonu murit ngiruk njàmbaaram ak taxawaayam bu am solo ak xam-xam boo xamante ni saa su ne rek mu di ko baaxee ci mag ñi nga xamante ni ñoo sos yoon wi muy Serigne Abdoulahi Diop Bichri kon balaa ñuy tàmbali waxtaan wi rek doon koy jox kàddu gi mu daal di nuyoo bu noppee ñu soog a dugg ci waxtaan wi bismillah aoudu billahi min alshaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته وخير خديمه وأمته أجمعين إخوة الإيمان والإرادة أيها المشاهدون والمشاهدات في كل مكان نرحب بكم ونسلم عليكم بتحية أهل الجنة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلتي mbokki taalibe yi mbokk yu tedd yi ni topp ci Makhama TV ci réew mi ak ci bitim réew mboolem njabootu islaam nu ngi leen di nuyu nu ngi leen di ziyaara mu ngi leen di ndokkeel di leen baalu xàq di leen baal di ñaan sunu boroom boole nu nangul li nu fas yéenee wax yàlla na ko yàlla def aw yiiw def ko ngërëmam te boole ko jullit yi ñuy teewlu yépp di jital ci kàddu yi ñaanal serigne mohammedul bashir serigne mohammedul muntaha mu serigne Bachiru mom serigne toba mi khalifatul am li taifatul muridiyya Yalla Yalla doli ko sam doli ko wattu ta yagal ko ci sunu kanam te doli ko wer defal ko tawfiq banali mu nal yep mu dal di koy agale niki nonu ñu ngi ñaanal muy juróom wu tedd wa ca darul muati di serigne Abbas Mbake. mi jëmmi borom daarul moo anti tey ci kaw suuf ñu ngi ñaan sunu borom dolli ko wér dolli ko kartan te yàggal ko ci kanamu njaboot gi di nuyu mbokk yi nii teewlu yëpp di leen baalu xàq di leen baal ngeen ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop Bichri kon ci waxtaan woo xam ni mu ngi fas yéenee jëm ci ñaari soxna yu tedd yooyu di soxna Mame Mariama Bousso ak soxna euh, Faati sa Diop kii di wéyjuru Cheikhul Xaddim yaakaari jaam ñi kii di wéyjuru maam Cerno borom Daaru Moxti rakkam ja jàmbaaram ja ke mu gërëm biir ak biti def ko muy koo xam ne royukaay la ci côté yépp moom la ñu fas yéene waxtaane incha allah ñu ngi nuyu mbokk yépp te leen ziyaara deen baalu àq waaye mu koo xam ni itam xëy na lu jafe rek mooy moom la am muy wujju wujjëm koo xam ne waajur la ci moom moo ko jëli indi ko ci këram sangam ngir bokk ak moom kër gi mel ni loo xamante ni lu jafe la ci jamono ji ñu toll kon ba tey dañuy wër rek laaj bi ci topp mooy diggam diggam ak ak ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkoon ak kër gi mooy ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy woowee ay wujju ak diggam ak boroom këram. ok sëriñ Serigne Khalid euh, jërëjëf ci laaj bu am solo boobu loolu lu ma soxal la ndax. fi jamono tol da ngay gis soxna yi ñu buñ bi bisu mam Mariama bu sa mo ñew ñu nu dole ay yére cotiser sen xaliss wut ay nak wut ay dal yu bax war ci bus di dem ku ne di nuroo ni mam Mariama bu sa la bëgg waye nak roy bi ëpp solo lepp ta roy bi li tax mu ëpp solo mooy dana tax ñom ñu nekk ay model, ba fi tam ay génération future yi nekk ay model, roy tam ci soxna si ci tam day tax suñu société bépp jup ndax al ummu madrasatun jigéen école la kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu ñëw bëggee xam nag maam Mariama Bousso ni mu doon doxee sëtam da koo bind Cheikh Mouhamadul Bachir mu Serigne Touba nga xam ni mooy wéjuru sëñ Muntaqa mi tey di Serigne Touba yàlla fi yàgg te baayam dafa bind ci menenu daaxil xaddiim doxalinu doxalinu maam Mariama Bousso jikkoom meloom ni mu nekkee woon ci kër maam Mor Anta Sali ak ni mu nekkee woon ak diggantam ak boroomam. mu ni wa sayyidatuna Maryaama jaariyatullaahi mu ni dëgg-dëgg sunu sang bu tedd ba soxna su tedd sa di maam Maryaama Buso mu ni jaariyatullaahi mu ni dëkkaale yàlla bu jigéen la woon lii tax ñu ni diw jaariyatullaahi xam nga loolu sifa la melo la waaw ah, ndax tur ku ne am nga ko su ma nee tey euh, monsieur le ministre ministre bi am na tur fonction bee tax ma naan ministre bu ma nee monsieur le maire maire bi am na tur bu ma nee avocat avocat bi am na tur waaye kon turam dëgg soxna Mariyaama la tudd waaye lu tax jaariyatullaay la voisine de Dieu parce que dafa méngoo ak lépp lu yàlla digle ci penc mi ci jigéen ñi jullit war koo meloon na ko lépp lu yàlla tere mu jomboon caa dem lépp lu soxna daan toppe borom këram ba làq ngërëmam mu meloo woon noonu lii moo tax ñi mu bokkal jamono ci seen ñàkk gi ñaan ñëpp ni kii mooy jaariyatullaay mooy dëkkaale yàlla bu jigéen bi kon Serigne Bachirou nee na. Euh, jaariyatullahi dëkkaale yàlla bu jigéen la woon mu ni waaye saalihatan muy dëgg-dëgg soxna Mariyaama bu sa ku yiw la woon xam nga bi yàllay wax yenantu yëpp ci alxuraan la mu ko tëjee rek mooy kullun min al saalihin ñoom ñëpp rek koo ci tudd min al ci ñu yiw ñi la bokkoon baatu saalih sëñ xaalit boo jàngoon téere bu ñuy wax taa iyatu suluk ci téere tasawuf bañ lay wax ki ñuy tuddee saalih dëgg dëgg ci mutasawifoon yi wax la maraati bi maanaam martaba yi muy jéggi pour tudd saalix da nga xam ni dëgg dëgg saalix du ay fo lu kawee kawe la pour nekk ko ci yàlla bu dee yàlla ne diw ci saalixiin yi la bokk mooy diw nangu naa joxe mooy diw nangu naa topp yàlla mooy diw gedd na ay nelaw mooy diw defar na xolam mooy diw wàcce na boppam mooy diw yërëm na am na yërmande mooy diw dëddu na àdduna mooy diw yaatu na mooy diw man naa muñ kon ay maratib yu bari ngay jéggi pour bokk ci saalihiin yi ba ci yàlla sax tudd na yarante bi ci ay turam a saalih mom la serigne Touba tuddewaat jambaram gi nga xamni mom lañu mujjé tek bëc ci doomi serigne Touba di serigne salih Mbàkke yalla yalla doli leeram taaf na ci barkeem kon salihin pour nga bokk ca ay màndarga yu bari lañu xol ci mbax ba nit diw salih la ba ci yarante ay salihin lañu won waaw léegi nak serigne basirou nee na soxna su tedd si di sama mam. muni salihatan deug deug ku yiw won ci yalla afifatan mu ku fegu la won fegu moy lepp lu warul duñ la ci deg lépp lu warul duñ la ci gis lépp lu warul nit ñi koo gàddu di ko jëme fa nga nekk da ngaa fegu ba lépp lu ànd ak caaxaan wala lépp lu ànd ak waxu caaxaan wala déglu déglu caaxaan sa yoon mosu caa nekk fii afifa diini yatan wax boobu jar na tàntal maam jaara di ko waxtaane diini yatan ni sëñ Basiiru toll nee na seere naa ni sama maam diine yatan ko amoon diine la am diine respecté julli da cee bokk am diine respecté koor da cee bokk am diine génne asaka boo ko manee da cee bokk am diine euh, jàng alquran da cee bokk am diine di col-col gu yiw di ko wax ak di ko yéene di ko jëf da cee bokk kon li tax mu ne diine yatal mooy amoon na diine ci côté yëpp moom maam jaara busu mu ne waaye kasi kasirata salaat ku bari woon lu muy julli la ndeke kon soxna Mariyaama bu sa jullikat bu mag la woon xawaama la woon da daan taxaw guddi di naafila guddeeg bëccëg muy julli kon kasirata salaati ku bari woon ak julli la moom maam Mariyaama bu sa wa a sawmi mooy koor bari woon lu muy woor moom maam wa saddaqa ak saraxe ku bari woon lu muy saraxe la ndax bi yàlla wax màndargay jaamukatu yàlla yi diggantaan ci sootu sajda da di tata jaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan waaye wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun sadaqa al azim dañuy bokk na ci màndarga nitu yàlla yi dañuy wéer seen wet ya ci kaw lal bi duñ nelaw fàtte léppi àdduna di wéttali ko yàlla ci naafile waaye wërsëg wi ma leen joxoon dañ ci daan jariñ ñiy dund di ci jariñe te yàlla di ci génne wàlla te sëñ Tuubaa noonu na ku bëgg am wërsëg da ngay def lu la yàlla wërsëgal nga ciy génne cër ñuy dund deen ci wërsëgal yawit yàlla wax ni wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raziqin boo ko teg wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayrun wa azamu ajra wastaxfiru allah inna allah gafurun rahim kon alxuraan wax na ci place yu bëri ñiy jëf te yàlla tax mu ni maam Mariyaama bu sa ca la bokkoon Sëriñ Basiiru wax ni mustaslimatan li rabbiha soxna Mariyaama Buso ku jébbaloon boppam yàlla la coow yu bari am yépp ñàkk a jébbal sa bopp yàlla di ko jébbal ko lott ne yow mooy indi coow waaye moom xamoon na ne yàllaay yàlla mu jël léppam jibbal ko yàlla dañ ko bokkaaleeg dara mustaslimatan li rabbiha mu ni waaye qaimatan bi waajibaati diiniha baynaha wa bayna rabbiha mu ni ko taxawoon la ci ay wartee fi diineem digganteem ak digganteem ak yàlla boromam ñu ko yàlla digal soxna si daana ko def lu ko yàlla tere mësu caa dem lu yàlla dogal neex na ko lu ko yàlla teg muñ na ko kon taxawoon na ci mboolem waajibaat yi dox digganteem ak yàlla boroomam mu ni wa fii ma baynaha wa bayna zawjiha ak Cheikh Momar Anta Sali Mbàkke mu ni waaye taxawoon na tam ci lépp lu ko yàlla digal ci soxna mu war caa jaar pour am ngërëmu borom këram soxna Mariyaama bu sa daana ko matal mësuta nangu dara luy coona gàllankoor borom këram te mu fekke ko mësta nangu dara lu nekk jafe-jafe digganteem ak borom këram maam Mor Anta lu mu ko digal def na ko ba mat sëkk lu mu ko tere jomb na caa dem defe naa xissa bi ci gën a siiw te murit yépp xam ko di ko waxtaane muy sàkket bi mu téyeloon borom këram maam Mor Sali te loolu xewe xuru mbàkke dem naa ba xuru mbàkke dem naa ba ci néeg bi soxna Mariyaama bu sa dëkkoon gis lalam ba ak téere yañ ca teg boo demee ñu wàll tam fi mu téye woon sàkket wi ci xuru mbàkke booba dafa timis mu xiin di bëgg a taw sàkket yi xaw a weng mel ni luy bëgg a daanu maam Mor Anta Sali woolu ko mu ñëw mu ne ko jàppal ma fii ci sàkket bi ma wuti ji buum takk ko ndax daan mel ni daan nawetal lii dal doomu aadama yépp dal ko mu fàtte fa maam bu Bousso mu taxaw guddi gépp téye sàkket yi nangu koo bàyyi ba fajar teel bi mu jotee maam Mor Sali génn di wuti ci ndox mu mu jàppoo bi mu ñëwee di xool satala gi ci la romb maam Mariyaama bu sa mu taxaw téye sàkkete mu ne ana kii kan la mu ne ko soxna Mariyaama Samos mu ne ko looy def fii mu ne ko ah Mbàkke démb de ci timis yaa waxoon naa la téyel sàkket yi démb ak tey nag damaa gisul foo ma waxee naa bàyyi moo tax sañu maa bàyyi ma toogoon di xaar sa ndigal foofa nag maam Mor ni ko nii nga ma déggale te jëmm yàlla rek waral ko maa ngi ñaan ci barkeb alquran ak ci barkeb sama boroom bu dee borom kër bu gërëmee soxnaam mu dal ci kawam gërëm naa la ci nii nga ma toppe di la ñaanal yàlla na nga am ëllëg doom joo xam ni li koy topp ci ay ruu ci yoonu yàlla dina toll ni kenn kenn pepp ndox yi taw ci àdduna bi te booba sëñ Touba ngi nekk ci at yu néew waaye bi mu ko ñaanalee loolu looloo ko dal ba sëriñ Touba tey àdduna bépp a ko topp fépp ci àdduna bi kon loolu topp ndigalu borom kër mënu koo weesu sëriñ Basiiru wax ni yému ca wakkaanatu rabbi awlaadaha ala diini maam Mariyaama bu sa soxla la woon soo xam ni daana yar njabootam ci diini te tey jigéen ñépp a ngi daw responsabilité te buñ jugee naan maam jaara laa gëm moom laay roy te doom yi leen yàlla may duñ leen jubbanti duñ leen yar ci islam duñ leen joxe ci daara ñu leen bàyyi ñu nekk ci jardin d'enfants ñu ngi leen bàyyi ñuy woy musique ñu ngi leen bàyyi ñuy caaxaan kon maam Mariama Bousso mi ngeen bëgg di ko roy moom amoon na farlu ba doon yi ko yàlla may ci àdduna taxawu na leen ba nu jàng seen diine yar leen ci lu baax yar leen ci njub ak yiiw ba ñoom ñëpp ñu tekki seen tànk kon kaana kaanat turabbi awlaadaha ala diini wal muroo ati mu yar leen ci mbañ rus nit ki am lu muy jomb teel leen am loolu ñuy bëgg wut leen yàlla téye leen seen dignité xam leen kuy ngeen war a àndal fu ngeen war ta dem jomb leen ñu gis seen fu nekk lu yaroon ci ak njabootam wa tahaarati ak ci laab ak tahaara mooy laab jàng leen ni ñuy jàppoo jàngal leen ni ñuy sangoo jàngal leen ni ñuy wirde jàngal leen ni ñuy sellale jëf pour yàlla nangu ko ba ñoom ñëpp ñu laaboon ànd ak sellal seen jëf njabootam gépp mu ne waaye wa kasiran ma tahki alayhim hikayaati saalihin bari na lool fu maam Mariyaama bu sa daan toog dëj Seexul Xadim ci wetam dëj maam Moor ci wetam di leen nettali doxalinu nitu yàlla yu njëkk yi naan leen isaab na tey ndax xam ngeen ko mu ni déedéet mu ne nii la daan doxee diggantee ak yàlla naa leen ndax daal yéen dégg imaam Malik mu ne waaw mu ne nii la daan doxee diggantee ak yàlla waaw maxruuful kërëx yi nag waaw uwaysul xaraan yi nag waaye ibnu arabi nag waaw eh, ibrahima dasuuqi yi nag waaw eh, di leen wax kenn imaam Ghazali yi nag di leen wax nitu yàlla yi jiitu woon niñ daan comporté woo seen digganteeg seeni borom ba nekk ay saalihiin daana ko nettali njabootam ngir ñu roy ca ba sëñ Basiiru jële naa ci ku maandu mu jële ci sëñ Touba mu ni moom sëñ Touba de li tax mu teel a tàmm taxaw guddi di julli bi mu koy door nee na tolloogul ci dal alxuraan xool leen lii sëñ Touba nga am juróom benn at juróomi at di taxaw guddi julli te booba dalagul daaray alxuraan muy lum daan tari ñu ni saar yi nga xam ni da ko mokkale ci dégg ko ci wéejuram mu ko daan tudd mu wattu ko ci xelam mu neex loolu la mokkal ba mujj gi muy taxaw guddi te dalagul daara ndax lu ko jox boobu habitude wéy jure ma ko wax ndax sëñ Tuubaa ne daa nga sa toog jataay bu maam jaara di waxtaane mu ne ko ahmadu del taxaw guddi ndax min daabi saalihiin xiyaamul layli bokk na ci habitude nitu yàlla yu yiiw yi di taxaw guddi kon del taxaw guddi fii la sëriñ Tuubaa jaar ba nekkoon taxawkat bu mag guddi di naafira ba mujj na soññ ci képp ku mu àndal wala ku mu jur taxawkatu guddi nga woon wala kuy rakkam taxawkatu guddi nga woon kookooy maam Mariama Bousso waaye jikko ji mu amee woon ci biir kër gi nekkandoo kook soxna yu tedd yi loolu tamit Cheikh Samba Diarra Mbaye bind na ko Cheikh Samba Diarra Mbaye dani minal amaaraati kawnul ummi aabidatan mutiatan rabbaha fawqal mutiaati nee na dëgg-dëgg daal mboole màndarga yépp mboolem bërëb yépp lu ñuy xoole nit di ko tagg xool naa ci lépp soxna maam Mariyaama bu sa sunu wéjur wa waaye ci gis daal mooy ku mënoon a topp la ba mujj na féete kaw mboolem yi daan topp yàlla ci yoonu islaam maam Mariyaama leen dàqoon topp yàlla boroom mu ni wa jaarati sa sàmba jaara mbay nee na bu sa ko doon topp yàlla boroomam la waaye ku doon topp tam ñaari wéy juróom la sëriñ Mouhamadou Bousso ak soxna Aysatu Waalo Mbàkke jëfe na seen ndigal topp leen ba seen gërëm mu ni nag loolu li tax mu man ko daa féete kaw mboolem dëkkaale yàlla yu jigéen yi ci àdduna maam jaara Bousso moo ji féete woon kaw mu ni xat ahsanat maa asaat kullu jaaratiha fi ardina wa sawaha min musiati mu ni dëgg mariyaama buso lepp lu mu fekkon nitu yalla bu ñuy ciow ni jigéen la woon ñu xol ko ci carrière am ñu ni lii la mësa ñaawal mom bi mu ñëwé remplacer na ko rafetal ko ba mu rafet ba légui lepp yam kep lu ñaaw ci islam gi jëmi mam jaara buso mu ni kaanat muxaffifatan xamlal maisati an huwa hiya tahmilu sabran kulla awqaati mu ni na daan yanu mam mor anta sali daan wa kër gi daa yenul waa daara ji mboolem coono yi waroon a nekke maam jaara bu saa daan buub kër gi bu xëyee defar xéewali nit ñi ndékki bu matt manqué mu damm gaalam yi mu denc takkaayam bu borom këram soxlaa lu mu dimbali ko mu jaay takkaayam jox ko bu nitu yàlla yi ne ci kër gi daan jàng jotee jamonoy lool lekk jamonoy bu seddee mu daldi jël ci gaalam wutal leen matt yu ciy jaaru di jox nit ñi tok ti taaman kibaram waaw daan jël ay ñam diko ko jox mag na nekkoon ci kër ga di joxe ndox ñuy naan di joxe ay mbaaj nit ñi di ci sang kon nekkon na ci kër gi di taxawu ñepp ba benn coona du leen dal waye neena muy muñ gep muñ ndax ma mariama bu sa yagul poroxaan juroom benn weer kep la fa nek murit yu bari xamuñu ko xamuñu ni ma mariama bu sa 6 mois dong la def daaru fee tay ji di poroxaan ndax mu fa dem 1865 ci mois de novembre bi ñu koy dëgmal ci la yàlla dogal maam Thierno feeñ borom daaru ñooti ci boobu contexte muy xeexu Paate Badiane Paoskoto loolu mu ngi nekkoon 30 novembre 1865 fekk Pinet la Prade war a xeex ak Maba Jaxu Ba ci jàppaleeg Lat Joor euh, Maba Jaxu daal di woo mag ñëpp ngir ñu dimbali ko jàppale ko ci islam mag ñu wuy gi ci la maam Mor Anta Sali jugee xuru yu yóbbaale njaboot ci la maam Jaara bu sa demaalee bi mu fa demee ba ñu eggee ci janvier 1866 rek ci la wàcc liggéey kon juróom benn weer képp la fa maam jaara sax daal di wàcc liggéey dundam 33 ans la waaye liggéeyam liggéey junniy at la kenn mënu ko wax ba jeexal ko kon loolu ñu bàyyi ci xel muñ kat la woon sëriñ Samba Ndiaye jóolooli ca waayam wa nee na mës ta julli te jàppul mës la wird te ñaanul door a sangam tuubal mës ta julli te jàppul kon julli gu mu julli ci njàpp gu tooy xipp la koy julle mës na wirde te ñaanul mooy saabu bu wirdee ñaan jàmm ñaanal ko njaboot ci door a xëy këram buubal kër gépp lay wër buub ko bale ba mu set mooy buub door a wër sangam tuubal dem ca sangam ba Maam Anta Sali sukkal ko tuubal ko kon liggéey na liggéey ba rafet ci 33 ans kooku mooy maam maam Jaara Buso waaye sëñ Ahmadou Jaw Paxa nee na ci maam Jaara Buso walam tusin amadan walam tuxin ahadan walam tubin abadan man aabaha maana li Ahmadou Diaw Pakha na walam tusin amadan maam jaare bu sa mës sa ñaawal benn mbir diir bi mu dundee lépp ma rafet walam tuxin ahadan mës ta benn mbindéef kenn du wax maam jaare bu sa ñàkkee na ma kersa walam tubin abadan jigéen ñi màggali ñépp poroxaan war nañ koo dégg walam tubin abadan mës tas ci këram mës fay genn ci bir kërëm takki bagage ta tay divorce ya ngi bari lol ci dund gi jigéen do gis may tàggoo nag ma bolé boole lutax mu ne tuñu muñ sanggamba. muñ kat la game xam mës takk bagage am ci kër sangam ba ba muy wacc mu ko ñaanal ko kon wala walam tubin abadan mu ni kon man abaha mana. kep ku waxal mam jaar buso ben ayib wala ben sik yaw mi ko wax yaay wax wax jo xamni wax judul deug la waye lepp ma rafet kaari yaram fépp fu mu jaar rafet na jëmmam léppam taaral na ko ci diine njabootam ñëpp yar na leen ci diine ba tey xëy na wàcc liggéey fa mu tëdd tey la muy sori sori huit kilomètres de Nioro ñëpp a ngi ko fay fekk tey di ko wutal màggal gu mag mag waaye nag mu nekkoon ci kër gi ak i jàmbaar yu ko jàppale ci liggéey boobu